ay màggal tamxarit yi ñu demee yëpp day indi addiyam ju am solo ci daara ja ngir jàpp te donte mënu ko jërëjëf kon bisimilah suñu fàllu jërëjëf sëriñ Omar euh, Baay Moor ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim laqad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 لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه اتبعوا في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد تسيق قلوب فريق منهم منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله من الله إلا تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا وكونوا مع الصادقين حسبك صدق الله العظيم jërëjëf Baye Mor Ndiaye ci jàng mu am solo moom yooyu itam ci suuratul baran baran muy suuratu tawba jàngal nga ñu fi benn barab jërëjëf suñu fàllu kan moo ko jox shahadam ñu woo ndey manu yo asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Cheikh ay mbokkam la ñëw yaayeen yi ak ñëpp rek nañ ñëw ànd ak moom fotow incha allah xaaral xaar ko parents de rek parents yi ñëw incha allah na yaayam ñëw ak papaam ak mbokki njaay ni ñëpp rek incha allah taala suñ photographe xaaral xaaral waa waajuram ñëw juróom anañu yaayam ak papaam ñëpp ñëpp ñu ngi ñëw ñu ñëw nañ jege waaw incha allah yàlla yàlla barkeel bismillah suñ fàll bismillah soxna Ndey Mariam ibdai min qawlihi taala baad audu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani arrahim alif lam mim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin bismillah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 الرحمن الرحيم ألف لام هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما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 inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين ليزدادوا walillahi junudu samawati wal ardi wa kana allahu aliman hakima hasbuk sadaqallahul azim jërëjëf masha allah tàcc leen ko bu baax waay tàccuwaat leen ko <laughs> tabaraka rahman macha allah aleykum wa mbokk yi maa ngi leen di nuyu bàyyiwuñu kenn nuyoo boo xam ne mi ngi jóge ci suñu xol ni mu jógee ci suñu xolit suñu làmmiñ lott na ci waxe ko nañ ko yëge waaye dana doy banu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale assalaamu aleykum nuyoo bi nag noo ngi ci jiital soxna Faati Gaye suñu wayjur mu ngi ci jataay bi mu jàll ci mbooleem jigéen ñi di nuyu suñu mag sëriñ Mouhamadou Rachid Ndiaye bu ñu ko nuyoo nuyu nag mbooleem ku sant njaay sëriñ Mouhamadou Bese sëriñ Amar sëriñ Mor du ñu lim ba ci waa Ndar sëriñ Abo Njaay Ndar ak ñépp rek ñi nga xam ne nag lépp luy jataay fi nun ñoo ko moom muy waa kër Cheikh Ahmadul Xadim te waa kër sëriñ Fàllu yépp fi la ñu yendu ñu ci bari dem nañ waaye kenn na fi des mooy Cheikh Mouhamad Fadel mii sëñ Fàllu Mbàkke mboolem Mbàkke ak bi seen nuyoo maa ngi koy teg ci loxoom ndax ñoom ñëpp ñu ngi fi woon yendu la ca des nag ginnaaw bi ñu santee borom bi subhanahu wa dañuy sant sëriñ Mor mii cant gi ñu koy sant suñ ne dañ koy sant day sar ba ci soxnaam yii nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi waaye ba ci wayjur yi nga xam ne ñoo ko jox seeni doom te doyloo ko ci ak ña am ak ñoom ay relation ngir daara ji bu ñu taxawee ci sëñ Mor li ñu koy sante bari na lool waaye duñ ko lim benn rekk lañ ciy wax bi nu bokkee lépp ma nekk taawu sox Faati Gaye mais mu nekk am caatam lii nga xam ne jàpp naa ne moo nu gënal suñ bakkan muy téere téereb alquran bi moo nu gënal suñ bakkan ndax moom trésor la bu dul jeex te soo ko amee te xam ko te góor góorlu ci ma la kaamil bi waaye baat bu nekk rek yàlla mën na la caa may dara téere boo bii nu bokk nag da koo ñor ba ma jàpp ne du ma nangu kenn gën ma ko bëgg waaye kon ma ne moom moom la gën a ñor ci moom dongab daara la jàng alquran def tànki neen sol menn bu bu diir bu yàgg dox ci naaj wu tàng ak guddi ak ker gu sedd yalwaan def lu nekk ba yàlla may ko alquran mu jàng li ñuy jàng ba xalaat ne dama war a dem murtani eggale ji mu continue dem murtani jàng ba dellusiwaat ñëw fi man ba mu dikkee ba léegi lu ñuy xeebe doomi soxna wala ñu di ko ko yabe du ma ne gisuma ko ci moom mais amul ci moom loolu laa koy sante leen di ci des ay effort la ay warteefam la mi ngi ciy def kem kàttanam idal maru lam yadnus min allumi irduhu fa kullu ridain yartadihi jamilu fa kullu ridain yartadihi jamilu shaa'ir ba nee na nit ki su góor góorloo ba ab deram yàquwut kenn mënu koo wax dara nee na lu ko neex booy boo mu sol ko booy boo mu sol perkaal booy boo mu sol faxya lu mu sol rafet na waaye nit ki su fekkee daa yàqub deram ba kum romb nga sañ koo wax dara kooku jëratul muy sañse bu mu sañse sañse bi amul benn njariñ ndax mu neen la def bu ko yëgee bu ko yëgut kon jazakallahu sëñ Mor xayran maa ngi àbbu juróom-ñeenti tabaaraka yi ci alquran bind ko ci mbalaat muure la ko loolu nag waa alquran xam nañ ko tabaaraka njanaay juróom-ñeent la ci alquran waaw ñoo la koy léemoo ginnaaw lool li may jeexale mooy mbokk yi nun ñëpp ay jullit lanu ne damaa bëgg dara te jaralu la dara nga bëgg caa am dara kon kenn dalaa waxul dara waaye xam nga ne loolu mënta nekk yàlla deesu naxanteeg moom mboolem ñi am ci yàlla lu ci kenn amul ay dof lañ leen di jàppe ndax bañ koy wut kenn jàppewu leen nit buñ ko amee nag ñu ne dof doflu na ba dem wallahi téere bii ku ci dof doflu bañ naan fu jëm ak ci lum nekk daa dof ndof googee dana mujj muy nit ku tiim ñëpp jël sa doom nag joxe ko ci daara ne damaa bëgg alquran ba noppi te lépp looy lijjanti daara ja ngay mujje danga nga fay ndox danga nga fay courant da joxe dépense bu dee da ngay luye da nga ko fay bu dee da ngay wodd sa njaboot da leen wodd bu dee da ngay fayal école ba danga ko fayal bu dee lépp looy lijjanti da nga koy lijjanti ba noppi lu ñëwati nga doog a jëm daara ja ba pare ne dangaa ngaa bëgg alquran boo leen boo ko bëggee bëgg nga loo xamut waaye am nañu ne ci jafe-jafe te xamoo ko ba yërëmoo leen képp ku yore daaray alquran ku am yërmaande ku ne da laa war a yërëm dama leen di jox benn ihsa benn kii bu ndaw rek gis ngeen daara yi fi gën a xaw a digg doomu lu ñuy fayu ñooy fayu ay quarante mille ñu wàcc ba wàcc ñooy fayu ay trente mille ak vingt cinq mille naa jëm ba ci ba yokk ko jóge quarante mille dem cinquante mille cinquante mille téeméeri xale yi ñaata la cinquante mille cinquante mille fois dix lu doon du deux cent du mille téeméeri xale yi kon lum doon cent da nga koy multiplier par cinquante loolu cent xale yooyu bu dee da ngaa luye kër da nga fay sept cent mille ndax R moom xawu leen a mën a yor boo ci fayee 700000 jàngalekat yi ñiy jàngal 100 personnes bu fekkee da ngaa bëgg njàngum qualité nga xam ne doo jël fanweeri gone juróom di ko doxab jàngalekat da ngay tàmbalee 20 personnes ba 25 ndax bëgg njàng mi baax ndax fanweeri gone wala fanweeri gone lu topp ku leen di jàngal bu amee ñaar ñett ñeent ñu wàcc alxuraan war a toppaat tari la ngay yor ci tari. dana am ñoo xam ne danga leen sacrifier parce que doo pare jour bi mënoo cee am li nga bëgg kon faw nga waaj nga waaji lim bi mbaa nga ne pend déglul ma ayda ñoom ñaar ñuy déeyante di tappale bu del see ci yow nga ne tari ba mokkul woon parce que taa bi mayu la ko woon ba leen boole woon ñuy dégloonte da nga wut jàngalekat yu doy téeméeri xale boo leen wutalee juróomi jàngalekat ku nekk yor vingt wala nga jëral leen juróom benn jàngalekat après ku nekk yor vingt cinq muy lim bu diggu doomu xoolal ñoonu li leen di fay mhm. juróomi jàngalekat li ñuy occupé ci ci ci kër gi ci ay chambre ak li ñuy jëfandikoo ci ndox li ñuy jëfandikoo ci courant li ñuy jëfandikoo ci internet te jàngalekat nag ñu baal ma am na ci ñooñ boo leen jëlee maanaam ñoom dañuy bëgg sax yow bi kilifa daara ji sax maanaam ñoom niñ bëgg di dunde yow ñimi koo dunde bu ndekki li ñëwee ñu ne waa ana meew mi waaw <laughs> ana meew mi nga lijjanti meew ma ñëw ba mburum kese dara néew ci biir bi boo góorgóorloo ba soos ko tey soos ko suba bu subaa boo ci defee beurre wala nga def ci leneen ah, man naa am ñu tegal la ko fee mbaa ñu génn jëndali seet bopp te dañ la koy wan wan ñu ne defoo ko maa ngi koy jëndi te yàlla xam na ne yow boo watul dangaa xaar bam naaj ba ndékki wees nga bañ mu yàqal la añ nga jënd gerte caaf booleeg sa café Touba waaye xamuñu yow lan nga nekk yow mi moom daara ji mm-hmm. am na benn benn jàngalekat du ñëpp waaye bari na ci nag ñoo xam ne nii ma wax la ñuy def loolu lépp nga jànkuwanteeg nag bu dee téeméer nga yor jàppal ne am na fukk ak juróom mbaa ñaar fukk ci ñoom ñoo xam ne nii seeni waajur bëgg ga alxuraan ak gëm ko ak war koo jàng ak tële ko mayu la nga ji leen dàq danga leen di téye. xale bi mën naa dem ba xaaj xaajal kaamil mbaa mu dem ba koy bëgg jeexal ay way juram mënatuñ léeg-léeg sax nit ñëw koo xam ne buñ la waxee situation am a dugg ci daara ji nga ne yàlla ngay liggéeyal amoo droit ci bañ koo jël lu mu mën a joxe danga ko jël bu joxewul dara da nga ko jël boo tuut téeméer boo am ñaar fukk dana ci mel noonu te ñooñu bu fekkoon dañoo bañ joxe dara mu tane waaye yaa leen fayalub jàngalekat te yëguñ ko yaa leen di dundal te yëguñ ko buñ feebaree la tax mënuñoo fay moo tax duñ fay duñ ko faj yaa koy faj te yëguñu ko fa muy tëdd di ko occupé yaa koy fay kon xale boobu mën nga ne da nga koy jàngal gratuitement ba pare yaa ngi dépensé ci moom lu mat cinquante mille par weer mu nekk fi ba mokkal alquran nga gis sëñ Sylla bu waaw mu baax mu ñëw jox la ab gañi laa bu koy gañi laa sax xewi na mu jox la jasneer wala mu jox la borode dee ku koy sol nga sol ko cukki-cukki jël sa kool gu weex teg ca ñu ne waa ji ah daara ji daara yi baax na de gaa yi waxatuñ dara loolu ay caaxaan la te bu fekkoon am na sax waratuñoo sol lu dul jasneer téere bii ku ma gis nga nekk ci di sol lu këfi nag ñu naan ni nga koy gisee noonu la ma ne alxuraan dama lay mere damaa bëgg ngay fonk sa bopp sol bu baax xeeñ lu neex kurus gu set di dox ndànk te bul nekk ci luñ lay yabe loolu laa bëgg ci waa alxuraan dëgg la luñ la jox yeyoo nga ko waaye nag nii moom bul ko ci boole ndax day wàcce téere bi la sëñ ma saxiir doon wax rek saxiir moom lim xam mooy toog lu mu am jël lu mu amut muñ sëñ taala lii nu fi wax lépp soññee bi ñuy soññi bu fekkee nit ñi dégg nañ ko sant nañ yàlla bu baax suñ ko déggul suñ borom mi ko dégg te lu la tànqam lu nekkal ci téere bi lu ñu séentu lu ne insha allahu dana ñëw soxla yi kenn ñu koo faj borom bi rekk a koy faj alhamdulillah soxla yi kenn mënu koo faj borom bi rekk koy faj ku ñëwoon jëndal la kër ba mu egg dugal la ci sax am na soxla soo xam ne da ciy xëy ba ngoon te a faju déedéet kon jàppal ne borom bi moo ko yónni mu ñëw faj ko borom bi defal ko tawfiiqu mu wutal la lii waaye ci borom bi la jóge te du tànkam lu kenn in tashkuru yardu yardahu lakum nañ ko sant lim nu jox noo ngi xëy ci téere bi di ci gont di lekk di naan buñ amee soxla mu faju bu yeexee faju yi dana faju gone yi fi nekk lu yaas bi metti metti danañ ko fay léeg-léeg ñu amee arrière borom comprendre mbaa mu ñàkk comprendre ñu dugg ay ruq tëj bunt bi toogub ruq ñaan ba ñax génn bàyyee sa bopp ak yàlla mhm. yàgg-yàgg suñu borom du bàyyi téereem bi kon du bàyyi ki ciy nekk nee na inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu la xaafizun mhm. yàlla nee na maa wàccee téere bi maa koy sàmm yàlla naka lay sàmmee téere bi téere bi ñu ne dawlin la ci butéel la nekk mu ne damay sàmm butéel bi dëwlin ji ba du tuur ba pare bàyyi butéel bi muy toj nun ñooy butéel bi nga xam ne ci la alxuraan ji nekk bu ko yàlla sàmmee duñu seetaan wasalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf sëriñ Omar euh, sëriñ Moustapha ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim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 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أسلمنا ولم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله taabuu wajaahaduu wajaahaduu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabiilillah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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم حسبك صدق الله العظيم takbir macha allah takbir jërëjëf sëriñ Moustapha Khoule njàng mi neex na lool wér na tabaaraka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين wa man tabi'ahum bi imaanin wa ihsaanin ila yawmi din ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan ñu ne ci biir tànt bi ñu ñu ñu ñu teewlu tuuti incha allah ñu teewlu sëriñ bi mu yëkk ci kàddu gi ñu ngi naan ñëpp ñu teewlu rek incha allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoobu lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa xam naa kàddu yi incha allahu taala mën naa bañ a gudd mën naa bañ a bare it kàddu yi tey moom du weesu kàddu yi cant kàddu yëpp ci biir ak cant lay dugg fi ñuy tàmbalee sant gi mooy sant borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo ko soob mu bindunu waaye def ñu nit te amoon sañ-sañub def ñu meneen mbindeef mu dul nit ci biir def ñu nit mu tànnaat ñu xéewale ñu def ñu ab jullit te bu ko sooboon mu def ñu leneen lu dul ab jullit ci biir bim ñu defee ab jullitit mu xiirtal ñu it ci ñu jéem a gëstu lu baax ginnaaw bu mu ñu xéewalee ay waajur yoo xam ne si ne dañ leen a fekk ci mbaax loolu lépp ay xéewal la yu daje borom bi tabaaraka wa taala defal nu ko bi ñu gëstoo lu baax it ñu am lu luñ ca xam mu def ci sunu xelit ñu am góor-góorlu jublu ci ngir di ko jéem a xamlewaat tànn ko muy sunub liggéey ba nu xàmmee ba léegi génnuñu loolu di ci yaakaar ngërëmam di ko ñaan mu nangul ñu ci te ñu ci am yaakaar bu baax loolu rek mooy sant gi nga xam ne si ne moom la ñuy sant sunu boroom te mënuñoo dab ab dayoom ginnaaw bu ñu santee yàlla ci xéewal googu mënu xéewale ñoo ngi sant sunuy waajur ñaari waajur yi nga xam ne ginnaaw bu ñu ko borom bi tànn tànnalee dimbale nañ ñu ba sànniwun ñu sàgganewun ñu waaye li nga xam ne si ne fi la nit ku baax war a jaar ku am ngërëmal boromam fa la jaar fa la war a jaar tàggat nañ ci loolu loolu ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax ndax lu ñu fekkoon suñuy waajur nekkoon ca mën naa am du ñu génn loolu ndax gis nañ ne li gën a bari ci àddina loolu moo ci ëpp néew na nit di fekk ay waajuram ci mbir ba noppi ñoom ñu moyele ko loo ñu loole ñu nekk li gën a bari kenn ku nekk fi nga jaar rek fa ngay taw ji orienté sa njaboot ngir da mel ne loola nga tànn yow te it loola neex na la waaye nag sunu waajur yooyu nga xam ne ni ñoom lañu suñu borom la ci ñoom ñoo ngi leen di sant bu baax ci xéewale gi ñu xéewale ñoom itam faggul ñu alquran di tàmbalee ci sunu waajur wa nga xam ne jiitu na ñoo ngi koy ñaanal muy bàyyi sëriñ Mafari Njaay ñaan suñu borom dolli yërmande ci kawam dolli ay ngërëmam yéegi ko ca barsaxu saalixiin ya góor gu baax gu bëgg alxuraan gu manoon alxuraan te fonkoon ko lool te fonk kuy yëngu ci alxuraan xereñe ko mokkal ko te mënan ko manin wu rafet ci bind ko dundam yépp ci jàng la ko doon def diggante tibb ak moroom ja sax alxuraan la fa daan tari yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko suñu boroom yërëm di ñaanal suñu waajur wi nga xam ne moo fi nekk yàlla na ko suñu borom defal fan wu gudd lool gën a yokk aw fanam gën a dolli ak wéram muy soxna Faati gën koo bàyyeek am xelam mu ànd ak ñun lu yàgg yàgg yàgg bi barakatul quraan yàlla na yàlla fay leen seen coono ci nun waaye di sant it ñi nga xam ne si ne ñoom la suñ borom jaarele xéewal gii ci nun muy ñi nga xam ne ñoo ñu tàggat xamal ñu alquran wan ñu aw yoon ndax kat ñi laal ci sunu dund bari na lool ndax sunuy waajur bi ñuy ñëw ñun ñooy ñi mujj ñëw ci ñun ñu fekk leen ñu jëm ak mag ñu fekkee lu tuuti ci seen dund kon fu nu egg rek ñi fi taxaw taxawaay sunu waajur ñoo ñu fa yeggale ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla fay leen tàmbalee ko ci sunuy mag sunuy bàyyi tëx waaye nag sunu sëriñ daara bi nga xam ne bi mu naaw bu mu doonee sunu mag moom mooy sunu sëriñ daara bu ñu bokkutoon dara tam def ci nun tey lu waral ñu boo woo nit ñi tey ñu wuy si ñu ndax lu ñu man ba di ko man man man loowaat ñeneen yàlla nga ko jaarale ci moom saa yu ñu wootee mu dagg ay yitteem yépp ñëw teewal ñu ak lu mu guddi guddi dana fi nekk ba mu jeex di ñu nemmee ko waxtu wu nekk di ñu ñaanal waxtu wu nekk muy sëriñ Amar Njaay ñoo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla gën a dolli wér yàlla na sun boroom kàttanal ko ba fi mu bëgg àggale alxuraan mu eggale ko fa ñoo ngi koy sant bu baax ndax laa yaskurillaha man lam yaskuri naas borom bi nee na ci kaddu alayhi salaatu wasalaam nee na ku sant nit ñi foo ko fekk doonul sant katub yàlla ab jaam balaa mën a doon kuy sant yàlla daa fekk day sant nit ñi te wax na feneen nit foo xam ne aysatu radiallahu anha moom la ko wax ne ko bu ëllëgee ba sunu borom dajale jaam ñi mbindeef yi am na jaam boo xam ne am na mbindeef mu ko defaloon mbir ci àddina muy njëkk borom bi laaj ko ndax kooko santoon nga ko mu tontu borom bi ne ko ah man kat yow sama borom sant naa ko ndax damaa xam ne yaa ki ko defal yaay ki ma ko defal ndax yaa yaa ko man yaa ko may loola yaa ko man loo moo tax yow laa sant borom bi ne ko lam tashkur nii is lam tashkur man ajraytu dhalika ala yadayhi santoo ma ginnaaw boo xamee ne ki ma jaarale mbir mi ci moom santoo ko nanga xam ne yow santoo ma kon ñoo ngi sant ñooñu nga xam ne si ne ñoo dugal seenu loxo ci sunu dund te muy dund yiw ba tax tey ñu ñemee toog fii woo fi mbooloo waaye di sant it ginnaaw bi ñu wootee di liggéey lii ñi nga xam ne si ne ñoo ñu wuyu si te ànd ak ñun ci liggéey boobu muy lan muy mbokk ñi nga xam ne ñoom laa bokkal daara ci tàmbulee ko ci sunuy soxna bopp ñu jël seen àddina yépp def ko ci liggéeyal alxuraan di sonn waxtu wu nekk du jàmbat mukk ñoo ngi leen sant bu baax ak képp ku nekk ci seen ron waaye di sant mbokki jàngalekat yi nga xam ne ñoom laa àndal ci liggéey bi ñu doon ñu jàmbaar lool ku ne xam na ne ñi fi teew ci aytu tànk mbooloo lañ ñi fi jaar mbooloo lañ loolu ku ne xam na ne du liggéeyub kenn du sunu liggéey waaye dafa am ay nit ñu baax ñu amul nangu am yéene bëgg li ñu bëgg dikk tànn ànd ak ñun di dox ci ron sunu kilifteef womatu ci lool nangu cee sonn lu ëpp sax ñun liñ ci sonn ñu ngi nii toog ñoom ñëpp seen guddi seen bëccëg seen ngoon seen lépp dañ ko def ci liggéeyal alquran ànd ko ak ñun bu ma ci tuddee kenn rek mu jiite mu yóbbaale ñëpp muy sëñ Abdou Fatah Cissé mii nga xam ne si ñi fi nekk ñëpp ci daara ji yaakaar na xam naa ne moo ci féete ay moo ci féete ak mag te kenn mënu ko ci nangu cee sonn lool ak mboolem ku nekk ci agronome rek ñoo ngi leen di sant yàlla na yàlla fay leen aw yiw yàlla na barkeb alquran wàcc ci ñoom ba loolu jàllee it ñuy sant ñi nga xam ne si ne bu ñu mënee mbir ba gëm ne dañ koo war a jaamoo yàlla ci liggéeyal ko ko ñoom ñoo ñu jox lu tax ñu mën a feeñal loolu muy waajur yi ndax bu ñu ubbi woon barab wala ñu toog sunu néeg wala ñu toog ci ron ab mbaar te gisuñu genn benn gone benn tu tànk bu ñu xamal liggéey bii li muy rëy rëy lii ñu fi feeñal duñ ko mën a feeñal kenn du mën a xam ndax kat ñun mën nañu lii wala mënuñ ko résultat bii it du feeñ ba ñu mën a woote ku ñu wuy si kon nag ñoo ngi leen sant yéen parents yi ñoo ngi leen sant bu baax a baax a baax ndax nangu ngeen nangoo muñ seen njaboot. ñi fi toog ba mott alxuraan ji defuñu fi benn fan defuñu fi ñaari fan kon nag bu kenn gis rek mbir mu yomb lool nga daal di jóg jël sa doom yóbbu ca daara ja ngir jàpp ne dafay def ñaari weer mbaa ñetti weer nga am li nga gis ne diw ba mu la invité ci doomam jaroon tari la mu am danga koy am déedéet am na lu ba rëy rëy rëy lu mu muñ loola mu tax mu door koo am kon nag boo bëggee li mu am na nga xam ne danga nangoo muñ lu toll ne li mu muñ lu ko ëpp ku xam ne ne tëdd làmb daj sa doom neex na lool di ndekki nekk sa doom nekk ci sa wet neex na lool di añ sa doom nekk ci sa wet neex na lool waaye nga mën a toog fukki fan ak juróom ñaar fukki fan weer ñaari weer nga mën ko toog doo gis sa njaboot teg ko ci ay loxo kooku ne xam ne ne doyloo nga ko te nangu ngaa muñ muñ googu nag nangoo muñ day waral nga ndamu loolu la sëriñ gaawaa sëñ Musaa Ka taggee woon sëñ gaawaan kon nit ki balaa mën a am ndam rek sëriñ Tuubaa dana wax ne lu waaye way am ca way lu waaye way am ca way boo bëggee am way ci mbir da ngay way mooy tax nga am ci way kon nag nangu ngeen nangoo muñ seen njaboot ba lii am tey ñoo ngi leen ciy sant bu baax a baax tey ñaan te di leen dénk ngeen yokk ko ñi nga xam ne ñoo fi ñoom la fi seeni doom nekk it te jaar ci yoon wi ñu nang muñ leen te bàyyi kook ñi ñu ko teg ci seeni loxo ba yàlla defal ñu ci ndam loolu yàlla mën na ko yàlla na ko def ginnaaw loolu ñoo ngi sant mboolem koo xam ne si ne wuy nañu ci woote bi muy mbokk muy wóllëre muy dëkkandoo muy am di jaam ku mu mën a doon rek ñoo ngi lay sant bu baax a baax ndax kuy woote ku nekk ku la wuy si nga bëgg tayit mëneesu leen a fay ndax barab yi ngeen jóge fa na lool ñoo ngi leen sant bu baax a baax di sant mbokki dëkkandoo yi nga xam ne ñoom laa dëkkal ci quartier bi ak ku ne xam ne ne daara ni ma koy waxee at mu jot lu ku naqaree ku naqaree dëkkaaleel la donc ni mu li mu yor ci ay pexe li mu yor ci ay yëf yu sew sewaan ci mën a tooñ ci mën a def loo xam ne sëriñ ba sax du ko yëg yooyu kenn xamul lu mu toll te musu musuñ ñoo àgg si du dégg mukk ku dog jóg ba ñëw ci biir kër gi ne xale yi dañ maa defal te wóor nañu loolu du ñàkk ak yeneen ak yeneen ak yeneen te mosuñu ko duñ ko jàmbat mukk duñu jàmbat njàngum gone yi duñu jàmbat coow duñu jàmbat dara te léegi-léegi daara samp fi barab nga gis mu mel ni am nay jullit yoo xam ne ñoom la dëkkal waaye da leen a tànqal waaye loolu nag ñii ñu dëkkal wax dëgg yàlla bëgg guñ guñ ci am rek bëgg gu mel noonu moom la ñu feeñal te yaatal ñu bu baax a baax a baax ñoo ngi leen di sant bu baax di sant it mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal ci daara ji ci faja muy ñaari daara yëpp bu ma tuddee mbokk ñi dëkkal daara ji rek ñëpp laa ci jublu moo xam fajaa la nga xam ne fa la liggéey bi doore fa la daara ji tàmbalee ba màgg ba yëg ne am na warees naa mën a génne ñeneen yóbbu leen ci beneen barab loolu moo tax ñu indi leen fii ñoo ngi leen sant yéen ñoom ñëpp di leen sant yéen ñëpp ku ñu tudd ak ku ñu tudd li ne ci xol bi rëy na lool waaye làmmiñ wi mënu koo tudd te it jataay bi xaw naa yàgg te guddi na te barab yi ngeen jógee sori na ñoo ngi leen di sant yàlla yàlla fay leen aw yiw seen coono yi di dikk ak seen coono yi dellu yàlla na ko suñ borom bind def ko seen balaase xasanaat seen jéego yi ngeen jéego ba ñëw fa yàlla ko suñ borom bind def ko yiw te ful ko te def ko seen balaase xasanaat di leen wax ba diwee nag jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullah loolu rek moo doon. waaleykum salaam wa rahmatullah li ma waroon a wax lépp waxal nañ ma ko moo tax ma gis ne cant rek laa mën a def. sëriñ xaadim wax na ko sëriñ galas wax na ko sëriñ faal mi nga xam ne moo doon wax ci kàddu parent del bi wax na li ñu bëggoon a wax kon nag sant rek ci jëf bu ngeen ñu jëfal loolu rek lañ leen amel wasalaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëñ Mortala Ndiaye kàddu yi am na solo lool waaye di sant bu baax aji ba nga bëgg a nga yóbbale ko fa eh, daa mel ni kon jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Mortala benn xale moo des Hmm. gudd na ñu kon soxna Sukka Njaay mu toog insha allahu taala soxna Sukka Njaay rek ma gën a si xale yi euh, dafa mel ni am na benn benn lan la ci wàllu diine mu nekk loo xam ne mu ngi nekk diggante laaj ak tontu ma ñëw si ak sama mbokk ndongo yi ma nekkal ci daara ji ma présenté leen ma tànn si ñoom. kàddu gi daa xaw a suufe da koy yokkal micro bi su ko defee moom lu mu suufe suufe rek dana ko dimbale bisimilah mën ngaa wax ci kaw sëñ bi. ma tànn si ñoom ñeent muy sëñ si la ak sëriñ Ahmad Senghor ak sëriñ Hamzatou Gueye ak sëriñ Fallou Khoule bisimilah bu ko defee ñu njëkkee sëñ Modou Sylla Modou Sylla bisimilah mën ngaa nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa ñu leen nuyu di leen ziyaara te di leen delloo nuyu suñu mbokk daara yi nga xam ni moom lañ bokk ak si daara ji ak mboolem ñu fi teew bismillah sëñ Mohamed Meng tafaddal incha allah waaw moo di si la sa laaj bu njëkk bi mooy maa xukumul xaj bismillah lan mooy àtteeb aji màkk ci lislaam joxal kii micro bi lan mooy àtteeb aji màkk ci lislaam bismillah jërëjëf sëriñ Mohamed Meng waaw aji màkk farata ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen qaala allahu taala moo tax borom subhaanahu wa taala wax na si arxuwaan ne walillaahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabila waral naa aji màkka ci nit ñi ci ku ko mën benn yoon ci sag dund wa qawlu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayuha nnaas qad farada allahu alaykum alxajju fa xajju mu ne ee yéen nit ñi yàlla faratal na ci yéen aji màkka kon nangeen aji wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Modou Sylla ba tey ñu ñëwaat ci yow ci ñaareelu laaj bi maa hiya surutul xaj lan mooy sàtt aju màkk ci lislaam bismillah jërëjëf waaw sart yi tax aji war la si lislaam mooy yii nga mat muskallaf ak nga mësoor ak nga am xel ak nga am sécurité si yoon wi ak nga nekk as gor waaye jaam munta aji màkka ak nga nga wér waaw yooyu mooy surutul xaj waaw ba tey ñu yow ci laajum ñetteel bi baax yi arkaanul xaj yan mooy yi nga xam ne su amul si aji màkk aji màkk ba du mën a baax bismillah jërëjëf waaw farata yi nga xam ni ko bàyyi sak aji màkk yàqu mooy yii qaala cheikh ahmadu bamba radiallahu anhu fi tazuudu sigaar faraidul xaj ladayhim arbau fa niyatu l ula ala ma yusrau summa tawaafu lil ifaadati adudi saaniyatan laha bi xayri fanadi wa saayuna bayna safa wal marwati saalisatu lmaadudi duna miliyati summa alwuquufu listamic bi arafati raabiatu larbaci kun za maarifa si ahmadu bamba radiallahu anhu wax na si tasuudu sixaar ne faratee aj boo ko bëggee xam fa boroom xam-xam yi ñeent la ba ca njëkk mooy nga yéene yéene nag ñu ngi koy defee ci armal fi nga xam ni fi ngay simeekuwee sor làmbaay ñaareel bi ñaareel bi pour mu ilqaa tawaaful ifaada topp warub ifaada ba temps dit nanga ko boobu mooy ñaareel bi summa alwuquuf topp taxaw bi ngay taxaw arafa moo tax suñu boroom wax na ci Alxuraan ne inna safa wal marwata min sha'airillah summa alwuquuf listamia bi arafati topp taxaw bi ngay taxaw ci arafa boobu nga xam ni li xawli sallallahu alayhi wa sallam ne alxajju arafa hmm? nee na aj balaa moo mat mu am arafatun mu am arafa wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Modou Sylla waaw bu ko defee ñu jàll si sëriñ Ahmadou Senghor bu ko defee ñu jàll si sëriñ Ahmadou Senghor bisimilah nu nga nuyu salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa waaw si Ahmadou Senghor laaj bu njëkk bi mooy maa xukumul udhiya lan mooy àtteb tabaski ci lislaam bismillah waa jërëjëf sëriñ Maam waaw tabaski daal sunna la bu ñu feddali ci bépp jullit ci góor ci ku ko man moo xam góor la walla jigéen mag walla ndaw ndax tabaski daal ak jaam yàlla boo xamante ne def na sa jege yàlla qaala allahu taala yàlla wax na saa xaan ne yonent bi ne fa salli rabbika wan xar dama julli ci iid danga reen sa tabaski wa qaala allahu taala aydan yàlla waxaatoon na saa ba tey la yanaal allah luxumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na tabaski soxlawu sa yàpp bu bëri wala deret ju bëri wala xar mu rëy walakin yanaaluhu taqwa minkum waaye lim soxla mooy de xool ba xam ndax ragal ngeen yàlla wala déet waaw Ahmad Singor bu defee ñu jala si si ñaareelu laaj bi min ay asnaaf taxrujul udhiya ci yan xeet lañuy ñuy génnee tabaski bismillah waaw ñeenti xeet yi mën tabaski mooy yii xar wala bëy walla nag wala gëléem am tabaski nag daa war a mucc ci bu nekk boo xamante ne daa bët benn bis benn bët ba du gis bu nekk bu gumba bu nekk bu muuma bu nekk bu tax bu nekk bu yooy yooy gu fes bu nekk bu làgg boo xamante ne tànk bi daa dam daa demoon wér mu koy sox bu nekk bu feebar feebar bu fes bu nekk boo xam ne lépp ci nopp daa xooteeku wala mu dagg bu mu nekk boo xam ne béjjën ba daa damb te wérut bu béjjën ba dammee nag te baax na bu génn ba ci ginnaaw daggee li ci ëpp mënta tabaski waaw bu ko defee ñu jàll si seen Hamzatou laaj bu njëkk bi mooy maa wa xukumu zakat yan mooy àtteeb joxe azaka ci lislaam salaamaaleykum wa waaw joxe azaka. atem farata boo xam ne yàlla suñu borom moo ko faratal ala kulli wa muslimatin ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen mu xam mag wala ndaw yàlla suñu borom wax ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlal ci alan jullit ñi azaka ndax da laabal te leen xus min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yàlla suñ boroom waxat feneen ci alquran wa aqimu salaata wa aatu zakat na ngeen di taxawal julli di natt asaka insha allah bu ko defee ñu jàll ci sëriñ Fallou Khoule laajam mooy maa huwa nikah lan mooy denc bismillah waaw mbokk mi di Mohamed Meng dafa laaj lan mooy denc soxna waaw denc soxna wa huwa aqdu yuxillu li kulli min az-zawjayni ab pas-pas la boo xam ne dafay daganal diggante ñaari way dencante muy loo xam ne luñ xemmem la ci ab jullit ndax sunu boroom subhaanahu wa ta'ala moo wax ne fankixu ma tooba lakum min annisaai masne wa sulaasa wa ruba fa in xiftumu allaa taadilu fa waaxida borom bi subhaanahu wa ta'ala nee fankixu denci leen maa la nga xam ne tooba na lakum ñel minan nisaa yi ci jigéen ña mas ne ñaar wa sulaasa wala ñett wa rubaaxa wala ñeent mu teg ca fa in xiftu mu nem ragal ngeen ne bu ngeen takkee ñaar wala ñett wala ñeent ngeen ragal ne allah taadilu du ngeen maanu borom bi nee na kon fa waaxida yem leen ci kenn ka wa qaala sallallahu alayhi wa yonent bi soññee na ci sëy moom it ne tanaakaxu tanaasalu fa inni mukaasirun bikumul umami yawmal qiyaama maasha allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen denc soxna ndax ngeen njaboot ndax man damay puukarewu ci yen ëllëg bu ngeen bare ci yeneen xeet yi ndax sunu boroom subhaanahu wa taala moo wax ne walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahumu azwaajan wa zurriya borom bi subhaanahu wa ta'ala wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yónni woon naa ay yonent yu la fi jiitu ma defal leen ñu am ay soxna ak ay njaboot kon daal sëy luñ sopp la ci ab jullit mu def ko bu ko manee insha allah jërëjëf macha allah macha allah jërëjëf. xam naa ñu doy loolu rek. sëriñ bi nee na ñu doy loo loolu ndax euh, darsu bi bu baree bu baree ñi mel ni man seen xel gàtt dañ koy fàtte. moo tax euh, li ñu jot a wax ñu doyloo ko rek incha allah man koy yóbbuloo ba déwén. dafa am ñoo xam ne dañoo gaaw a fàtte ba mel ni man seen xel yi baaxut. waaw jërëjëf. ñu ngi leen sant yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla def si seen dënn xam-xam bu wér insha allahu rabbi bu ko defee maa leen ñaanal bépp parent bu fi teew yàlla na ne yàlla may kàttan gu mat amin ak wér ak gudd fan de leen amin kii amagul bàkkaar lu mu ñaan saa borom da koy nangu de leen wax amin amin waaye ma leen di ñaanal amin ngeen ñibbi si jàmm insha allahu rabbi amin yaa rabbal amiin amiin jërëjëf sëñ Daara. Kaatu maa ngi ñaan ñëpp déglu ko déglu soxna Sukay bu baax mooy xale bi nara mujj jàng ci suñu xafla bii di le 9 6 mois 2024 incha allahu taala moom mooy mujj a jàng incha allah soxna Sukay kon sëñ Fallu bismillah. Euh, kon soxna Sukay ibda'i min qawlihi taala ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما كأنما يساقون إلى الموت يأتوكم بألف من الملائكة مردفين حسبك بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي لكم طيبتم فادخلوها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقال وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Sadaqallahul aziim. Takbiir. Masha Allah. Soxna Sukay Njaay tacc ko tuyaa bala bañ koo tacc muusi bala tacc ko tuyaa bala bañ koo tacc muusi bala tacc ko tuyaa bala bañ koo tacc muusi bala di leen baloo àq di leen baloo àq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu defal njëggal ak yërmande ñu ko xéewal yi saay rek bàtti ñaan gi moom xanaa bara bu ñu jàngal alxuraan mel ne ne bu ñu daanelee ñëpp mën nañu wax amin benn yoon rek ndax jàng nañu fi alxuraan borom xam-xam yi wax nañu fi seeni dénkaane li ci mooy ñaan yàlla li ñu fi yendu def lépp mu nangol ñu ko barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke Mawlana Seexul Xadim ñi ñaan fekkente ne mbooloo mi fi teew kenn ku nekk teewlu def astaghfirullah benn yoon jàng fatiha benn yoon jàng fatiha ayatul kursi yi ayatul kursi yi fallaxi ak naasi fallaxi ak naasi tëjee ko salaatu ala nabi tëjee ko salaatu ala nabi booye man ñaan yàlla mu faj aajo yi àdduna ak yu àllaaxira yi amin yaa rabbal alamin ñun ñëpp ñu boo nangu ñaan incha allah amin ya rabbal alamin allahumma amin amin alamin ngeen am jàmm ñuy am jàmm amin ba déwén ak jàmm amin ya rabbal alamin ngeen am jàmm ñuy am jàmm ba déwén ak jàmm amin rayoo leen amin ya alamin ngeen am jàmm